يا سلام لا إله إلا الله يا جبار لا إله إلا الله auzu billah bismillah inni wan yàlla barki borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala yéen waa waajal xelkom waa kër Serigne Saliou ñi am nañu li nga xam ne moo di mbégte ak tawféex taxawati fii nga xamante ne nii fi lañ daan taxaw ah saa su ne si waxtu wi ak fi nga xamante ne nii moom lañ ko doon defee tey nag ñoo ngi nii taxaw ak ñi nga xamante ne nii mooy suñuy jëwrin ñu naan koy jëwrin Serigne Abdoulahi Lo ak jëwrin Badou ak uh, yeneen mbokki taalibe yi nga xamante ne nii uh, ñoo topp suñu ginnaaw buñ nee jëwrin sëñ Abdoulahi Lo tudd jëwrin Badou tuddaale nañ ñëpp Seydina Aline Badara Lo ah wax dëgg si ak sëñ Mor Lo ñoo ngi leen di siyaarewaat kenn si ñun di suñu jëwrin di suñu lépp. nga xamante ne nii ndeysaanam fu mu ne aw leen fa fa la ñu aw lu mu lay def leen it loolu la ñuy def lu mu ne bàyyil moom la ñuy bàyyi ndeysaan di suñu jëwrin di si mooy sëriñ Abdoulahi loo moom sëriñ Saaliw jëwrin ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare waat salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Saalihu Mbacke jërëjëfati sëriñ Saalihu Mbacke sëñ Baye ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu jëwriñ ñi ñu taxawal lépp Seydina Alim Badara Diop sëñ Saalihu Ngom ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Mor Lo di ziar bu baax a baax sëñ Ousmane Noreyni sëñ Mor kenn képp koo xam ne sëñ Sadibou képp koo xam ne ci jëwriñ jàpp ci liggéey bi nga rek ñu ngi lay ziar bu baax a waaw ñu ngi dajewaat fii ñu baaxoo daje rek di fi ñu daa déparé di asolem fas yéene dem ci tool yi liggéey li sëriñ Saliou Mbacké la boo xam ne nag wax dëgg yàlla mi ngi ciy bëgg a yàgg di ci jëf waaye dañoo xam ne amul benn liggéey bu ko féete kaw ndax sëriñ bi daana wax ne sama tool yi de lépp loo xamante ni am naa gisuma lu ma ko gënal te it yaakaar naa fajuk aajo fa la gën a gaawe liggéeyal Sëñ Tuubaa fa la gën a gaawe kon bu ñu fi baaxoo taxaw ak mbokki taalibe yëpp jëm ci toolam yi nga xam ne mooy tooli ko yi dañ ciy amaan mbégte di santaat bu baax nag Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne wax dëgg yàlla at mu jot mu jox ñu ci ndigal ñu ànd ko ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo àndal ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn muy soxna yi ak góor yàlla yi bëgg nañoo ñëw te ñëwuñ ak ñi daa ànd ak ñun te yàlla dogal ñu nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen ci fasaale di leen ci ñaan kàddu yi nag xam naa doo doo du du gudd kàddu yi cant la rek di santaat Serigne Saliou Mbacke soo ñaan mbooloo mi ci liggéeyal Serigne Saliou te xam ne amul lenn lu ko féete kaw ndax daana wax ne liggéeyal euh, liggéeyal Serigne Touba du ma ci yërëm nit ndax fay gee tax kon nag wax dëgg yàlla dañuy xam ne ñu ngi liggéeyal ko jëra liggéeyal di yëkkati ay addiya tamit di ko barkeeloo ci jëmmam jooju ndax daana wax ne bokk na ci njëriñal xaddiya day bari la néewoon di barkeel la bari woon di def fu dara nekkul woon bu fekkee néew na mu baril ko bu fekkee bari na mu barkeel ko bu fekkee dara nekku foon mu def ko dara kon boog jëmm la joo xam ne nee na daal ko jaaxal mooy mooy ku mus a dem xelkom kon boog dañuy sant yàlla bu baax bi mu ñu boolee ñi fay dem di gàttal kaddu yi di xam la ne kàddu yi cant la ak kaddu yi ngërëm xam naa jëwriñ sëñ Seexuna Fay it mi ngi fi naa Seydina ba Badara Diop mi ngi fi te ñoom ñëpp war nañoo am ay kàddu yu yuy soññee rek yoo xam ne war nañ koo tënk sëñ Ousmane Noreyni mi ngi fi ak mbokki taalibe bi yëpp rek ku ci nekk rek tënk ñu ñu mën a wàcc ànd dem ci liggéey bi. ko déggee noonu ndeysaan jëwriñ ju mag ji nga xamante ni moom lañu jiital suñu kanam muy sëriñ Abdoulaye Lo moom moo doon addu noonu moom ngeen doon léegi ñu ngi ak jeneen jëwriñ ndeysaan moom it di góor yàlla nekkit koo xamante ni ku am postef si liggéey sëriñ Touba bi nga xamante ni saanam ñun ñii nga xamante ni sax ay ay rakam lañ sax eh, ñaare lu bari moo ñuy poussé naa ñu acca takk leen jog takk leen jóg sëriñ Badou ñu ngi lay ziar. Euh, kilifa gi ñu ngi leen di bu baax. auzu billah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi ku ci ne ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant leen baalu àq te leen baalit àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala daje bi yàlla nañ koy daje faw ba àjjana rek barkab sëriñ Saliou waaw ziar naa ñëpp. waaw moom daal xam naa ni dañuy sant rek dañuy sant bu baax ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacké ndax yàlla dogal na amuñu lu dul moom bëgguñu lu dul Serigne Saliou ndax soo xoolee daje bi ay tout tànk nekk ay ndaw toll ci liggéey toll ci wut xaalis lépp ñu ba ngir jëmmi sëriñ bi kon nag maanaam day firndeel ni tout tànk yi bëgguñu ku dul Serigne Saliou waaye nag liggéeyal sëriñ bi nit dina ko bëgg waaye li euh, sëriñ bi liggéey loola moo jafe waaye nag ñun jàpp nañ ni sëriñ bi moo ñuy liggéeyloo kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax liwerte wér mooy comme ni ma ko waxee sànq rek amuñu lulul liggéeyub sëriñ Saliou bii te toolu xel koomi kat amuñu lul moom ndax tool yoo xamante ni lépp loo ci jëf mi ngi jëm ci ay junniy junniy nit ñoo xamante ni jox nañ ko sëriñ bi sëriñ bi di leen jàngal te kenn du fa yóbbu xéewal yaakaaruñ ko fudul ci tool yi kon nag liggéeyal yàlla dëgg dëgg dëgg mooy dem ca tool yi maanaam liggéeyal ku tedd ki maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp maanaam dañu mënul sax wax loolu suñu jëwri mi nga xamante ni mooy Cheikh Abdoulaye Lo tamit ñi ngi koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala maanaam daje bi mu yàgg koo jiite ci barkeb Serigne Saliou ziar naa góor yàlla fi teew yëpp wasalaam. maa ngi waat ak sama yeneen ñaari jëwri ndeysaanam muy ndeysaanam kenn si liggéeyam Serigne Touba bi waaw moom mën naa ne liggéey bi si ñi ko sos si la bokk ndeysaanam yàgg see ànd ak ñun tete ñu won ñu yoon wi dalal ñu mën naa ne ñun ñi ñëpp képp ku fi ñëwit moom moo la dalal woon la yoon wi ginnaaw si suñu jëwriñ sëñ Abdoulahi Lo sal ñu ngi lay siyaar delloo wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki waajal xel koom noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baale wax ñëpp di santati sëriñ saali bu baax ndax tey mayeeti nanu dimbaleeti nanu teyit fas yéene na nañoo sagan ndax xel koom gi ñu wax ne bëgg faa dem taxu faa dem bañ faa dem taxu faa dem mu ñëwaat na képp ku fa dem ndimbalu sunu borom la moo tax ñu ne sëriñ bi dimbaleete nanu te buñ ko xoolee njariñul koom lépp mu ne su ko wax ci jotaay bii ndax ki toog ci kërug boppam toog ba mu yàgg ne damaa ñeewoon toog ñi nga xam ne dañuy romb barab ba di jàll ndax la leen fay fekk buñ ko xamoon duñ fa jóg ñu ngi santati Serigne Saliou ñun ñi fa jëm di ñaanal mbooloo mi nga xamante ni tey ñoo taxawal jëf jii di waajal Xelkom ba may nekk ca daara ja de daanaa leen wax ne leen yéen waa waajal xel koom yàlla ngeen amum koom ba ngeen xëyal ko wala muy ngoon kon it dañ koy waxati ndax ñi ngi waajalu ngoon di ñaan ñu làqati ci ngërëmi sëriñ bi ngërëm yu yaatu yaatu yaatu ñaan sëriñ bi dimbale ñëpp lii de suñuy bàyyee ko tàmbale woon ca 91 ñu ñëw di ko doxal ba 2020 kon dañuy sant sëriñ Saliou ba xotti ko amuñu lenn lu dul sëriñ Saliou mënuñoo wax lenn lépp mooma lépp mooma ñi ngi santati bu baax a baax a baax xanaa nag lim doon wax ne ma am lu ma dénkaat ci mbooloo mi tuuti rek ndax dafa daan wax ne liggéey bi de lu ne mën na ko waaye lu ci waaye di def lu nekk rek na fas nee na ki fas nag bokk na ci li ko jaaxal ndax ginaar guy nen di naan du ami cuuj loolu yàlla nu ci yàlla musal bu ñu demee ci tool yi nañu fas te it maa ngi dénk mbooloo mi ay kàddu yu néew daara joo ci dem day juróom benni tool tool bu ca ne un kilomètre carré digganteem ak moromam ak mbooy mën na faa xaj mbooy gu yaatu goo xam ne ak farlu bu ci àndu da gis ku dugg ci ab tool dab mbooy gare na liggéey bi jeex na fekk tool a nga ca walla am nañ fa ay jëwrin sëñ Saliou dafa wax ne ngërëm de yomb na yombul waaye lii dàq picc de dàq na ngërëm nga dem ba mu yàgg rek na mel lu xunt moo xam baat ba noo ko waxee ak lu mu gàtt gàtt rek loola dàq na ngërëm yàlla fan jëm ñu làq fa ay ngërëm yaato yaato yaatu ci barkeb Serigne Saliou jërë ngeen jëf waaw ndeysaanam bu ko defee ñu ndeysaanam kaddal li nga xam ne mooy kaddu yi ndeysaan moo Modou Kara ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi dellu ziar ange billah bismillah inna wali yàlla jërëjëfa teeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëfa teeti Cheikh Saliou Mbacké moom mi nga xamante ni maanaam moo waral lii yëpp moo waral bés bi moo waral jotaay bi moo waral maanaam dajaloo bi fii tey waaw maanaam ñun moom duñ def leen lu tënk kàddu yi rek ci ak cant waaw ñun ndaw yi maanaam dañoo amee cant Serigne Saliou mbaake dañ ko amee cant bu baax a baax a baax surtout ñun suñu classe yi nga xamante ni dañuy yëngu si wàllu xaside yi waaw buñ demee bay jàng xaside yi dañoo war a sant Serigne Saliou waaw dañ ko war a sant bu baax a baax a baax a baax waaw rawatina itam maanaam ci li jëm muy tooli xel ko mi waaw boobu maanaam góor yàlla yi moom dañoo war a gën a passé fuwaat képp ku mës dem xel kom waaw bu la ko suñu borom mën na nga ko jaayante fexe ba dem ndax ay tawféexu àdduna ak alaaxira moo ci nekk ñun ñi itam ñuy dem nañ ko gën a seelalaat waaw di fas yéene lépp lu ñu bëgg waaw di ñaanal sëñ mun Muntaxa yàlla suñu borom bàyyi ko fi guddal fanam wér ay cërëb ba lépp lu mu nam liggéeyal maamam suñu borom defal ko ko te mu ànd ko mbokku taalibe yëpp yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax jërëjëf teeti Cheikh Cheikh Salim Mbacke jërëjëf sëñ Modou Kara ndeysaanam Fall ñu ngi lay ziare waat baax a baax. waaw ñu ngi sant sëriñ Saliou bu wér a wér a wér di santati Serigne Saliou bu wér a wér di sant sëriñ Saliou bu wér a wér waaw ñu de ku am xéewalu dem xel kom te sëñ Saliou boole la si war nañu santaat bu baax a baax a baax ndax damay faral di wax naan xel kom kat koo fa dem di nga am xel ak koom waaw yal nañu si Serigne Saliou boole ñu ñëpp ñu am ko di nuyu jëriñ Ablaye Lo ak euh, sama mag ju baax ji di sëñ Badou. di ko siyaar bu baax a baax a baax a baax waaw di siyaar waa waajal xel Xelcom ñëpp bàkki Serigne Saliou ñun de ñu ngi santati Serigne Saliou ba ñu boolee ñu bokk si ñuy dem xel Xelcom te di ko waajal te ñu tuddee ñu waajal xel Xelcom ñu ngi santati bu baax a baax a baax a baax waaw di gàttal wax ji rek waaw di santati bu baax a baax nag di santati Serigne Saliou bu wér a wér a wér ah man de wax dëgg yàlla am naa si tawféex bu baax a baax a baax a baax képp ku dem Xelcom wax dëgg yàlla am nga tawféex di liggéeyal sëñ Saliou bu wér am nga sa am nga tawféex war nañu sant bu baax a baax nag di sant Serigne Saliou bu baax a baax a baax. am spécial la si mu di Serigne Sadibou Sam ndeysaanam moom it di jëwriñ joo xamante ne ndeysaan lu gaa yi itewoo si café rek ndeysaanam moom mii moo koy jox gaa yi gaa yi bu ñu demee si tool yi balaa ñoo xëy di dem tool moo leen di jox café bu ñu ñëwee it moo leen di jox café ndeysaanam ñu ngi lay siyaare. jërëjëf ñuy sama gaa yi ñuy siyaare ñëpp di siyaare waa waajal xelkom yëpp di la jégalu bu baax a baax tey tey bëgg tamit te te di leen ñaanal bu baax a baax a baax tey wax ni am nañ mbégte lool si si cër bi ñu si jox muy cëru café gi wax dëgg si yàlla ñu ngi si sant bu baax a baax a baax di siyaare waa waajal xelkom yëpp ñun suñu wax dañ koy dañ koy gàttal liñ liñ leen mën a garantal te garantal ko mooy ku ñëw di naan café di nga meew ba lépp loo bëgg si wàllu café moom incha allahu rabbi ñoo leen ko promettre bu ngeen ñëwee incha allah di ko naan ñun moom mënuñu wax waaye li leen mën a garantal te garantal ko mooy ku fi moom di nga naan café gu gu gu mucc ayib waaw di ñaanal suñu sëriñ nag sëriñ Sidi moom sëriñ na suñu borom guddal fanam loolu te wéral ko te kattanal ko si barke Alxuraan ñooy siyaare ñëpp di bëggee ñëpp di jégalu ñëpp tamit di tuub yaa ngeen jëfati jërë ngeen jëf jërë jëf yaa jëriñ mu ngi noonu waaw waajal xel comme ndeysaan ñoom ngeen seen noonu ñu ndeysaan am fas yéene ñoqali jëm si tool yi maam yi dem liggéey kon comme nañ ko daan liggéeyee waaye ñoo ngi sant ndeysaan am suñu xalifa sëriñ ndeysaanam Muntaxa Mbake saa borom bàyyi ko fi lool ba mu agale naalu maamam boo naal naalu boppam barki maam si Ibrahima Fall waaye noonu la ñuy siyaaree suñu jëwriñ saanam di suñu kilifa ñu ngi koy siyaare waat bu baax a baax a baax madame Dioum ñu ngi koy siyaare waat bu baax a baax a baax tey jii moom moo fi war nu taxaw ndeysaanam ndax lii lépp bu amee it moom it ndeysaanam lépp moom moo ko waral ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp barki maam si Ibrahima Fall